et puis allah ñu ngi sant yàlla bu baax a baax yàlla yàlla. amiin xepp euh, dolli. Hmm. alors Seydina Omar Ba sans plus tarder léegi léegi dañuy dem jëli jëli ëtt yéen a kaay xëy fësal sacré Seydina. <laughs> <laughs> Oui, j'adore les commentaires. Hein. C'est, en tout cas, ici en France, tout le monde utilise les transports en commun, loolu gàcce sans complexe Seydina monsieur le euh, monsieur le maire incontournable machallah sa liggéey rafet na futur honorable député ah yaa dinaa tonne yi nga xamante ne ñu ngi lay ñu ngi lay féliciter en tout cas ci sa franchise mais également hmm. euh, ci sa euh, taxawaay mais euh, sa ñambaarte ci sa wàllu liggéey hmm. alors Seydina sans plus tarder dañu dem jëli jëli ëttu yéene kaay xëy fa sa doore ko Walf Quotidien dafa xëyee dellusiwaat ci assemblée nationale bi nga xam ne nee nañu président Bassirou Diomaye Faye fukki fan ak ñaar ci weeru septembre la ko yoon may ngir mu tas ko yéene kaay gi ne bu ko tasee nag dañu jàpp ne ab paaka ñaari boor la noonu la ko yéene kaay gi wàl fa côté ña xëy fësilee jël nañ kàddu gi jox ko Pape Demba Sy moom dafa jàpp ne bu ko tasee bu boobaa dana am njeexital gu am solo ci nguur gi nu muy doxee waaye ku ci mun mu ni risi giseewul noonu moom dafa jàpp ne bu boobaa même bu fekkente ne assemblée nationale taxawagul bu boobaa yoon may na ki nga xam mooy président Bassirou Diomaye Faye muy gouverne par ordonnance noonu la ko yéene kaay gi wàl fa côté ña xëy fësilee leneen aussi loo xam yéene kaay gi xëy na ko fësal te booy euh, te mooy Maroc ña ngay sàkku ci état bu Sénégal explication jëmale ko ci kàddu yi ñu jàpp ne Cheikh Omar An Diagne da ko yëkkati jëmale ko ci buuru Maroc te jàpp nekkul kàddu yu tegginu noonu la ko yéenekaay gi di la Soleil xëy dellu si waat ci rejet projet de loi mu soxal dissolution euh, euh, kon ma ngay jël acte noonu la ko yéenekaay gi di la Soleil kon na soleil ñu ngi jël acte noonu la ko yéene kaay gi di le soleil euh, xëy fësale. Mhm. ñu dem ci Sud Quotidien. Euh, Sud Quotidien xëy dellu soit ci dépôt motion de censure mu soxal gouvernement bu Ousmane Sonko majorité bi daanaka jamono ji la ñuy préparé mooy nguur Ousmane Sonko ñu daal di koy dóor mu kaw yóbbu kawoo noonu la ko yéene kaay gi xëy fësale waxoon nañ ko nag finalement mujj nañ koy def. Abdoul Mbow Abdou Mbow ak ay ñoom kon déposé nañu euh, ci table Amadou Mame Diop li nga xam de motion de censure euh, su ko defee daal lañ ci jublu daal mooy daaneel Ousmane Sonko ak gouvernement am noonu la ko gi euh, xëyee fësale motion de censure noonu la ko yéen kaay la bennoo nag daanaka ma ngay wane boppam yéen gi noonu la xëyee fësal ci diggante ba ci jamono ba ci joon yàlla tey ji histoire motion de censure luñ fi dund la yéen kaay gi moo xëy fës ci jamono joojule Diomaye moom ma ngay prendre acte jëmale ko ci projet de loi boobu nga xam ni gars dañ ko rejeté noonu la ko yéen kaay gi di la côté jeex xëy fësale soxna Issa yéen kaay gi critique xëy dellu si waat ci motion de censure ak démission gouvernement bi nga xam ne nekk enjeu Euh, majorité bi euh, bala faire encore maanaam daal ñu ngay euh, door cee weñ wa ci jamono jamono tàng noonu la ko yéen a kaay gi xëy fisale ndax rejeté nañu mot de censure motion de censure rejeté nañu kon mhm. loi bi nga xam président Bassirou Diomaye Faye woon na ngir ñu jéem a tas au conseil des collectivité territoriales Euh, noppee guñ ci lañ ci jub daal mooy fexe ba daaneel Ousmane Sonko ak nguuram noonu la ko yéenekaay gii di critique xëy fesale soxna si l'info yéenekaay xëy dellu ci motion de censure ak dissolution assemblée nationale course contre la mort de Benno Bokk Yaakaar noonu la ko yéenekaay gi xëy fesale daanaka ay fan yu néew moo des ngir président Bassirou Diomaye nationale waaye diggante bi bu fekkante ne sukkandiku nañ ci kàddu yi nga xam Doudou na a daje

ne ci mënees nañu xam ne mu ngi ci siège exécutable yéen kaay gi moo xëy fësal loolee waxtu nekk Ousmane Sonko mën nañoo daaneel nguuram yéen kaay gi moo xëy fësal loolee si jamono jojëlee mbiru Cheikh Omar Diagne euh, Bougane Gueye Dany mu ngi yëkki ay euh, ci kàddu yi nga xam mu ngi koy yëkkati jëmale ko ca Touba ba ci lenn ci ay réew yi nga xam ne ay réew xarit lañu ba tax mu joxoñ ab baaraama tuuma Ousmane Sonko ak ki nga xam ne ni moom moo di euh, moo di Bassirou na luy njig njaaga te ñoom booba léegi jéemuñu koy dellusiwaat noonu la ko yéenekaay gii di laas xëyee fësale le mandat yéenekaay xëy dellusiwaat ci bras de fer maanaam xëccoo nga xam ne na jamono ci diggante nguur nguur gi ak waa député Benno yile Euh, yéen a kaay gi ne bu loolee amee ndax du Ousmane Sonko moo ci doon le grand perdant yéen a gi moo xëy fi si loolee euh, li jëm nag ci crise religieuse ak politique Bougane Gueye Dany ma ngay ñaawlu taxawaayu Cheikh Omar Diagne noonu la ko yéen a gi a euh, dafa xëy dalal si les crédor li ci ay kadoom daal di ñaawlu na nga xam ne noonu la waa Benno Bokk Yaakaar di doxalee jamono ji gannaaw daal ba dañoo rejeté loi de révision constitutionnelle yéen a kaay gi ne Euh, dem euh, Clédor Ciré Ly daal di saako ci état bu Sénégal ngir daal ñu gën a gaaw ci réforme yi euh, su ko defee daal la nga xam ne ni moom la leen Sénégalais yi sas ñu mën koo jëfee noonu la ko yéene kaay kii di 24 heures xëy fësale bés bi le jour yéene kaay kii di bés bi xëy dellu soit ci mbiru ONAS ak it enquête bi nga xam daanaka jamono ci gars ubbi nañ ko waaye enquête bu xaw a gênante la noonu la ko yéene kaay gi xëy Euh, ndax ñu ngi xaar euh, ab man ay autorisation boo xam ngi bàyyi ko ci président la république su ko defee ñu mën a entendre ki nga xam moo di ministre euh, Cheikh Tidiane Dièye yéen kaay gi moo xëy fësal loolee yéen gi ne jurisprudence Farba Senghor moo dellusiwaat yéen kaay gi ci loolu xëy fësal soxna sa Aïcha réew mi quotidien réew mi yéen ci lu doy waar loo xam moom la ñu nemee ko jamono ji fële ci hôpital Fann ab clinique privée moom lañ fa bëgg a jëmal loolu nag ci biir hôpital bi la yóbbee syndicaliste yi jóg ne mbir yi moom dafa amee ñu ngay tudd nag benn cardiologue boo xam ma nga nekkee fële ca France moo nekk ci gannaaw lii waaye ñoom liggéeykat yi ne loolu moom mukk dafa amee noonu la ko yéenekaay gi di réew mi xëy fësalee yor yor yéenekaay xëy dellu siwaat ci confiscation maanaam teg loxo gi nga xam ne nii cap euh, euh, major kañ teg na ko loxo lenn ci ay kam yoo xam ne nii euh, ñu ngi bokke fële ci seen thème yéenekaay gi nag ne donte le sax procureur def na ci soit transpi waaye dafa mel ni que ba fi euh, gendarmerie jéemuñu see teg benn jéego ba tax yéen kay xëy samplaaj bëgg a xam ndax gendarmerie fu mu toll dañu nekk ci tànki protégé ku ci mel ne Massour Kandji ak waa BN2 noonu la ko yéen kaay kii di yor yor xëyee fësale source a source a xëyee dalal euh, Kalidou Koulibaly euh, di suñ at di suñu défenseur bi laaj tontu gi dox ci diggante ak suñ naatangoo yi moom wax na ci defet bi nga xam ni jët nañ koy jëlee seen seen seen diggante Côte d'Ivoire ci coupe d' afrique bi passé nee na la boo xam ne mënu koo fàtte ci dundam yooyu gi ci loo xëy fësal wax na nag ci problème système 3 5 2 bi nga xam ne Aliou euh, yi nga xam ne moo leen di xaar noonu la ko yéene kaay gii di source ak xëy fësalee soxna ñëw rek daal di euh, disséquer puis commenter l' actualité du jour euh, yaa xam nag tey fan ngay génn en attendant ñu ngi fii sur plateau ak ab Sané sama goro nuyu naa la te aujourd'hui moom ci très matinal macha allah. Ah, dañ la namoon. la namoon démb gisuñu la woon. waaw moo tax ma ñëw tey. ñu xaw la gelu tuuti nag. parce que yaa ñu tàmmal léegi talaata ak àllarba. yaa ñu ko tàmbal nag non altine. Ah, talaata. waaw. nga dëgg altine talaata waaw. waaw nga dëgg wax nga dëgg mais xam nga ci ñëw ñëw ñëw na lënd bi mënoo nga ñëw may nag talaata ak àllarba bi loolu da gën a neex. waaw d'accord dinaa ah, jéem ñu koo kii rek. waaw dinaa ko fan yii nag actualité bi yaa ko téye. te loo fi waxtaanee. Hmm? Hmm. nguur gi doxal. loolu nag moom loolu nag moom jaaxal na ko ñu ngi lay bàyyi xel bu baax a baax <laughs> ne ko gars yi dañu commencé tëj na ma dimbale. <laughs> non la tëj yow. kenn du la tëj. non ne ko rek ñoom gars yi dañoo commencé tëj. non kenn du la tëj maam jàppaan maam jàppaan demagul de. léegi amatu fi nag. jàppaan am na fi mu ne lu doxal yoon rek. doxal yoon. veille et alerte. ah man maam xam naa ne moom. Hmm. Ah, dañ leen dundee yaakaar rek yaakaar ne duñ ci bokk. non moom kay ñu ngi yaakaar am nañu yaakaar bu foofu. Ah. waaw dundee yaakaar yàlla baax na waaw. waaw baax na comme yaa ko wax te yow tu es beaucoup plus informé que nous. non nañ xoolaat kon Seydina. oui nañ pikkiwaat suñuy cër ba ci kanam. <laughs> ah non parce que kii Pape day wax rek waaye njàppar xam na ne amul. dafa xaw nekk RG un <laughs> xanaa <laughs> say mala dama la dégg Seydina da ngeen def waay. ñu ngi lay ziar grand. delloo ziar bu baax a baax. soxna Aïcha oui sama goro namoon naa la rek. bilaay maa la raw. waaw nam euh, téléspectateur Walf TV. ak auditeurs yi. jërëjëf jërëjëf ana euh, dawkat bu mag bi. Euh, mu ngi mu ci kanam mu ngi ñëw. ah ok alhamdulilah ci kanam ci kanam mu ngi ñëw. mu ngi doon à tout à l'heure léegi Seydina. ëttu mhm. yi nekk ay xëy fësal daanaka ku ci nekk ak fi nga génnee. peut-être yow ñu bàyyi la nga xool fan ngay fan ngay génn ak ñun en tout cas l'actualité l'actualité majeure reste la xew ca assemblée nationale. xam naa ne jël pen bokk koog Pape Samba Sassane comme ça mu gunge mais bien sûr. mais d' euh, euh, damay dellu si waat parce que fa laay ubbee. Mhm. ci information bi xam joxe woon naa ko barki Demba Ndiaye fële ci Ndramé Escale. Mhm. mu soxal euh, le bi sant Ndoye. Mhm. El Hadji Malick te ñu ne ab trafiquant de drogue la gars jël si woon ko. finalement mu ñàkk bakkanam ci diggante bi. démb la commissaire Niang bu artiste daf maa woo. Mhm. moom it di joxe aussi version la mhm. <laughs> version des faits. Mhm. ma nangul ko ko aussi. Euh, parce que problème bi mooy que population bi ñoom dañuy wax ne ne c' est la gendarmerie alors que c' est pas la gendarmerie c' est l' ñoom seen jëm bopp ci li ma wax ñoom ñoo fa def descente ñoom. dañ fa def descente c' parce que tout simplement ga waa ji nga xam ne nii actuellement ni moom moo ñàkk bakkanam c'est un grand trafiquant de drogue ci li mu wax moom. te ba ñu duggee ca kër ga dugg nañ fa te bañ fa dugg aussi jàpp nañ ko te bañ ko jàpp aussi génnaale nañ fa lu mu bon bon lu toll ci ñaari kilo yàmba benn wala ñaari kilo foofu seen Dramé. waaw fële seen Dramé. commissaire ñaa moo ma wax. Euh, en même temps aussi. Mhm. yamuñu si waaye bañ duggee ci orkos yi fekk nañ fa ñaari pistolet ñett pistolet yoo xam ne nii ay arme la. Mhm. yoo xam ne ñoom jël nañ ko daal di koy yóbbaale. bañ ko jëlee effectivement ci lañ ko monote. Mhm. parce que kooku c' est normal voie normal voie légale la. Mhm. jël nañ ko daal di koy dugal ci oto bi. bañ ko dugalee ba ci oto bi ba ci yoon wi ci la mu wax ne ne ci la ko crise asma daaneel daaneel. bon au début sax jaa jël ñu ko woon au sérieux mais bañ demee ba ci biir gis nañ l'affaire est devenue sérieux ci lañ malheureusement bu mu àggi hôpital ci la wuy ji boromam gannaaw ba ko médecin bi constaté kon le fait que ñu naan dañu ko dañ ko moom nee na torture amu si d'autant plus que sax ñoom ñu ngi ay audio yoo xam ne ni nee nañu soxnaam ki ne moom moo ko wax mhm. comme quoi que seen jëkkër jëkkëram ji nit la ko xam ne ni dafa Euh, asma da ko sonaloon. da ko yàgg di daaneel. Mm-hmm. ba ci sax frère ki nga xam ne moom mooy ki ki génn àdduna yooyu tën tën nañu propos yooyu la. Mm-hmm. kon moom mu ngi wax ne ne le fait que ñu wax ne ne ñoom ñoo rey ñoom reyuñu. Mm-hmm. waa ji dafa am crise asma finalement moo ko daaneel ba finalement loolu moo ko mujjee yóbbu barsak. bon mais néanmoins. soutenir nañu comme quoi que ne. waa ji moom c' un grand trafiquant. ku dugg biir Salam Escale xam nga ne c' un trafiquant. léegi nag ñoom seen liggéey lañ doon def ba finalement dogal dal leen ci

information chaque jour boo xoolee ba du ma affirmer directement. damay naan population bi ñoom ñoo wax. tout nag bu fekkee nag population bi ab wax na yow aussi bu fekkente ne am nga ci benn droit de réponse boo ma ko waxee aussi man ma jël daal koy. mais bien sûr mm-hmm. a suupa daañu xam effectivement circonstance su. déew nga xam ne ni moom moo di euh, Ibrahima El Hadj Ibrahima. Euh, pourquoi pas attendre sax les résultats de l'autopsie. léegi soxna Aïcha pour mën a te même sax nee na effectivement nee na autopsie loolu la mhm. <laughs> autopsie sax nee après li mu wax moom mhm. crise crise la crise asthmale moom loolu la wax loolu la ma wax démb mais l'essentiel ak lu ci mantam mhm. su peu daañu am résultat yi et puis ci xam dara quoi waaw mais lan lañ ko def aussi ba crise asthme moom déclenché parce que crise asthme aussi ñëw ñëw ñëw ñëw ñëw rek rek daal di mais bon en tout cas lii nag mooy preuve de grandeur et preuve de professionnalisme tout à fait dañuy foog ne que bu ñu waxee dara. Mm-hmm. c' est la religion c' est la Bible. wala c' est le Coran. Mm-hmm. mais lii Seydina Omar def. waaw lii la ñuy xaar. mooy maanaam nga joxe sa information. am leneen lu ci bees. bees nga am l'honnêteté ñëw dellu si ñëw teg ko ci taabal bi. parce que tamit booy joxe information toujours. dana am ku muy arrangé. dana am ku muy nuyur. Mm-hmm. waaw ka nga ku muy nuyur nag bu demee ba ne la nag. Mm-hmm. affaire bi nii ak nii la demee. Mm-hmm. la logique aurait voulu que nga ñëwaat toogaat. ne mu ngi nii. léegi nag nga bàyyi sénégalais apprécier. apprécier voilà. très bien merci Pape loolu la ñu def oui <laughs> pour xamal commissaire ñaar rek ñun nekkuñu fi pour jéem a dénigrer la police. mais bien sûr on a fait que notre notre notre travail mhm. te ñoom tamit te yii bu amatee. ñoom tamit ñuy eh. génn. en même temps suñuy génn aussi def ay communiqué taskatu xibaar yi. def ay communiqué parce que on travaille ensemble. c'est ça nag le problème. voilà on travaille communiqué def ay communiqué parce que dafa am mor doom. mais bien sûr lii nag mooy problème mu police gendarmerie. Mhm. douane sax tane na leen ci côté boobu. douane day communiqué. Mhm. mais police gendarmerie du ñu nangu communiquer te booy wax. nga gis ñu jëw taxaw naan. yow da nga leen di def da leen di dénigrer et consorts. pour dire la vérité rek li nga wax nii nii nii. barki Demba Ndiaye l' armée nationale a fait une descente fële dans le nord Sindian. Mm-hmm. rey fa benn booy. Mm-hmm. mais il a fallu que nit ñi wax ci. Mm-hmm. ñu soog a génne communiqué pour wax si ne booy yi dañ doon trafiquer bois. tu vois alors que. la nga xam ne moom la nit ñi jàppoon jàpp ko. mooy que booy yi c' est des gosses c' est ba jeunes qui une bavure de l' point barre. mais il a fallu que coow li bëri. ñu soog a génne communiqué pour ne non booy yi ay trafiquants de bois nañu dañ daje ñoom ci àll bi booy tiré balu fital ñoom it ñu riposté. Mm. xam nga loolu moo tax des fois il faut que. en temps réel ñuy mun di communiquer ni nga ko waxee c'est un partenariat mm-hmm. Mm-hmm. mais cette histoire de grande muette bi nga xam ne moom la ñu bëgg a imposer yi kooku c'est révolu ah partout dans le monde les FDS communiquent mm-hmm. parce que on Euh, on est actuellement ci monde communication communication voilà. Mhm. soo communiqué wul les gens communiquent à ah dara. waaw ah ah et si si si si le monde communique à ta place c'est que bonjour les dégâts déformation de de l'information bu nekk mën nga ko mën nga ko cee kii donc mieux vaut que ñuy collaborer ak surtout la presse. bu ko defee ñu mën a donner la bonne information. c'est que pour xamal ko rek ne ko bon man moom jóguma vraiment pour jéem a diriger la la police les frères. parce que bañ ko sax man fa ma dëkk cité ba ma la. Mhm. c' est des frères collabore avec eux ay copains lañu. Mhm. bon l' essentiel li am la et puis man aussi may rafetlu grandeur le fait que mu womb pour jëm ay ay mhm. teg nañu ko ci table bi maintenant c' est la population de. d'en juger soxna Issa. oui député Benno Bokk Yaakaar yi démb dañuy déposé benn motion de censure. motion de censure bi mu ngi ci taabalu Amadou Mame Diop. wax nañ ko keroog ba ñuy jël seen décision di rejeter proposition de loi bi nga xam Bougane astaghfirullah kii di président Bassirou a Faye mm-hmm. jox na leen ko pour que mm-hmm. ñu mën a tas li nga xam moo di au conseil des collectivités territoriales ak conseil économique social environnemental ba mbir yi amee ci la Abdou Mbow wax ne mm-hmm. suba suba dañoo fas yéene déposer seen motion de censure finalement passé nañu à l'acte déposé nañu seen motion de censure Pape nag loolu am nañ ci droit. Mhm. Mhm. parce que boo demee ci constitution bi article quatre vingt six may na leen effectivement ñoom ñu déposer seen motion de censure te motion de censure boobu lay soxna Aïssa bu dee yaa ngi may déglu. bu fekkente ne majorité de députés yi. Mhm. adopté nañ ko bu boobaa mën na entraîner démission gouvernement bi nga xam ni Ousmane ko moom moo ko jiite léegi nag lan moo motive député yi nga xam ne ñoo nekk ci coalition Benno Bokk Yaakaar ba tax ñu ne dañuy daaneel nguuruk Ousmane Sonko wax nañu ne li tax parce que dañ jàpp ne Ousmane Sonko. Mhm. dafa nekk ci tànk yi budde déclaration de politique générale bi nga xam ne ni moom la ñuy xaar mu def ko parce que bëggoon nañu mu def ko mais ci diggante bi Ousmane Sonko def leen ne man du ma dem ci assemblée nationale boo xam ne nii règlement intérieur bi jaarul ci yoon. Mm-hmm. parce que Guy Marius Sagna moo ko bind lettre xamal ko ne ko waroo fee ñëw parce que règlement intérieur bi nekkul ci yoon. Mm-hmm. léegi nag gars ba ñu daje seen biir indi modification ci ci intérieur bi. Mm-hmm. ñoom président groupe parlementaire yi. le 16 août ñu wote ko. kon ñoom li ñu doon xaar. moo nekkoon ci diggante bi Ousmane Sonko ñëw def sa déclaration de politique ñoom dañuy jàpp ne Ousmane Sonko nekkul ci tànk yi def déclaration de politique générale maintenant ndem xam nañ ne ñoom seen dund yàggatul. Mhm. parce que fileeg le 12 septembre. conseil conseil constitutionnel jox na avis président Bassirou Diomaye Faye ne ko am na sañ-sañu tas assemblée nationale. Mhm. léegi nag pour jéem a tas avant ñu tas assemblée nationale ñoom peut-être seen défi mooy fexe tas nguuru Ousmane Sonko. Mhm. loolu mooy seen défi mais l' essentiel nañ jàpp ne soxna Aïssa mhm. motion de censure moom du fi lu bulet <laughs> boo fàttalikoo bi ci gën a récent récente mhm. mooy bi nga xam ne nii amoon na ci 2022 mooy euh, bu kii bi ñu gàtte sax bu Amadou Ba nga xam ne ni député yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci groupe Yewwi Askan Wi ñoom ñoo déposé motion de censure gannaaw bu mu defee sa déclaration de politique générale mhm. waaye finalement loolu mujjut a antu ndax sur les 165 députés boo xoolee ba xool 55 yi ñoo te 55 yi daanaka mooy député yi nga xam ñoo nekk ci biir yeewi yeewi askan wi mais bu weesoo aussi Amadou Ba aussi boo fàttali ko en 2012. Mm-hmm. yaakaar amul na fi. Euh, c'était je pense euh, Pape bu fekkee tere yaa ngi may maa ngi ko fàttaliku 2012 euh, c'est Abdoul Mbaye. aussi gars yi defoon nañu motion de censure pour jëm ko daaneel xam nga lan moo ko waraloon. Mm-hmm. c'est parce que tout simplement. en 1990. gars yi ba fa Hissène Habré ñëwee. oui oui gars yi dañu ne moom Abdoul Mbaye jamono jooju moom moo jëloon xaalis it après di ko blanchir. léegi nag le fait que muy blanchir xaalis boobu la opposition bi day jàppoon ne du yoon moom Abdoul Mbaye di nekk ci bopp bopp euh, euh, bopp primature. Mhm. moom moo taxoon ñoom ñu jëloon décision daal di koy bu jëloon décision pour bëggoon koy démettre. Mhm. mais finalement mu jot a sotti. ndax 14 députés rek la woon alors que ñoom pour que ñu mën a démettre gouvernement bu Abdoul Mbaye il fallait que ñu am 76 députés. Mhm. Euh, am na yeneen aussi am na yeneen. mais bi nga xam ne nii moom moo ci jot a aboutir. Mhm. am na bu Mamadou Lamine Loum extra extra. Mhm. mais bi nga xam ne moom moo ci aboutir. ci motion de censure mooy bi nga xam ne gars yi defoon nañ ko ci Mamadou Dia. c'était en 1962.

ñoom waa Benno Bokk Yaakaar mooy ne Ousmane Sonko foo mu def déclaration de politique générale mais Ousmane Sonko amul fenn fu ñu waxee ne temps bii war ci bu la neexee mën def déclaration politique générale. Hmm. yoon may na ko mu jël temps am man sama gis-gis. peut-être mën naa juum mais yoon may may ko mu jël temps hmm. mais lan moo tax ñoom coûte que coûte ñu bëgg Ousmane Sonko ñëw taxaw ci kanamu député pour def déclaration politique générale c'est parce que tout simplement. Hmm. dafa fayantoo goo xam ne moom la ñuy xaar ci Ousmane Sonko. parce que wax naa la ko démb dafa am loo xam ne nii ñoom waa Benno Bokk Yaakaar du ñu ko mës a baal Ousmane Sonko. parce que ci seen diir ñoom seen pouvoir gannaaw ba nga xam ne président Macky Sall dafa waxoon ne je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression. Mm-hmm. fexe ba ku ci mel ni Idriss Seck mi nga xam ne moo nekk l'opposition phare mu fexe bi daal di koy dugal ci biiram mu yaakaar na Sénégal dootul Ousmane Sonko bu mu génne lu nekk def nañ ko pour dugal ko seen biir Ousmane Sonko bañ jàkkaarloo ak ñoom nag ñu tuumal ko lu ne tuumal ko da nga doon yaxaan taxan ay Adji Sarr mhm. ñu dem ba ci biir yoon weddi no loolu amut ñu dem ba ci biir dañaa xaw corruption de la jeunesse mhm. nga jékki-jékki dàq ko mais l' essentiel ak lu ci mënta am yow nit kii moom gëm na boppam comme quoi que ne ma dem la fas yéene opposé mhm. mu opposé leen lu nekk ngeen ne sa waay lu du sotti booy bi dafa virulent booy bi il faut que ñu tëj ko si kaso bi. Mhm. booy bi lii booy bi lii booy bi lii. booy bi gëm boppam moom séquestré ko kërëb booy bi gëm boppam comme quoi que ne nguur gi fi nekk dama leen fi jëlee ba yàlla def tey jii mu jëlee leen fi teg fi ku ci ku ci mel ni Bassirou Diomaye Faye jafet que pour Sonko jëlee fi nguur gi fi nekk tey mooy la nga xam ni ne waa Benno Bokk Yaakaar mënuñu koo baal ki nga xam moo di Ousmane Sonko. mënuñu ko woon léegi nag il faut que ñu préparer mhm. benn tribune boo xam ne ni dana fa mën a ñëw su ko defee ñu daal di instrumentaliser seen soi-disant député là su ko defee ñu daal di koy dénigrer mais Ousmane Sonko ba woon ak Ousmane Sonko bi bokkatul mhm. Ousmane Sonko opposition ak Ousmane Sonko premier ministre bokkatul mhm. moo tax ma ne Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko am nañu sas sas bi ñu leen mooy que dañu fekkoon système bu fi nekkoon ñu nekk ci tànk yi éradiquer ko ko pour jëm koy dindi te système nag aadala te képp xam koo xam aada xam ne ne aada pour nga jëlee ko fii ci biir réew mi yombul. ku weddi laaj suñu maam yi fi nekkoon doon fi jéem a instauré diine islam. lu nekk la ñu daj ak suñuy maam yi fi nekkoon pour que ñu mën a implanter fii diine islam. kon da nga da nga jël exemple sama mbokk séeréer si. lu nekk Maba Diakhou def na ko Cheikh Omar yëpp def nañ ko pour que ñu mën fee fexe ba sama mbokk séeréer parce que ñoom laa gën a yàpp quoi pour que ñu pour que ñu mais dafay ko compliqué parce que ay cedda lañu ñu woon en même temps aussi ñu am seen culture am seen aada mais nee mooy seen détermination ak seen abnégation moom moo leen poussé tey ba tey jii Sénégal ñaari jàkka yoo dem tey jii benn bi ab séeréer moo koy jiite. tey jii boo xoolee tey jii Sénégal ñi fi gën a dàq alxuraan tey jii boo jëlee xaalpulaar yi am mais tey jii séeréer yi bokk nañ si nga xam ne ñoo ëpp ay xaafisul Alxuraan am na aussi yeneen xeet aussi dama euh, pour bañ mais bëri nañu parce que tout simplement bien que ay ay tuwél lañu waaye dem nañu ba dugg ci biir diina ji te loolu dara waralu ko Oustaz Assane Diouf Oustaz Assane Diouf exemple la lañu mais loolu bu fekkonte ne suñu maam yi fi nekkoon boo ko imposé. Mhm. delluwaat nañ delloo woon nañu delluwaat nañu ginnaaw maanaam dañu xawoon nañu yox yoxi kon bu baax loolu du am. Mhm. parce que fi aada moo compliqué. aada boobu nag actuellement nii moom la fi Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye war a jëlee parce que système moo fi nekkoon système aada la. Mhm. aada bu fi nekkoon xam moo lekkoon lan. moo nekkoon ay politiciens yoo xam ne ni amuñu métier amuñu amuñu paltu. li ñu xamoon moo nekkoon sàcc. te baal ma li ñu xamoon mooy nekkul corruption. li ñu xamoon moo nekkoon enrichissement illicite. li ñu xamoon moo nekkoon escroquerie foncière. su ko defee à tout moment ñoom ñuy am alal suñu seen askan wi di appauvrir. dundee nguur daal. léegi nag aada boobu moom moo fi nekkoon depuis 1960 ba ci yoonu yàlla tey ji léegi bu fekkente ne ñi ay ndaw lañu jóg taxaw ne aada boobu dañ ko fiy jëlee du doon lu yomb. Mhm. ba tax na pour que ñu mën ko fay fexe mu am fi. il faut que ñu am abnégation am détermination bi nga xam ne suñu magu diine yi amoon nañ ko démb pour mën fi instaurer islam. est fi may waxee. foofu la foofu la ñuy doxalee. Mhm. léegi nag moo tax du yomb léegi fi nekk tey c'est des dinosaures dañ yàgg ci nguur lépp lu ñu am nguur moo leen ko jox. amul ci kenn koo xam ni dana la wax ne kat man liggéey moom moo tax ma tekk si ñoom. Mhm. ñu si bari si ñoom avant ñoo nekk politique tekki wuñu woon dara mais bañ duggee ci politique ki li nekk ay multimilliardaires te wuuru concussion corruption escroquerie léegi nag bu fekkente ne yow da nga ñëw vraiment pour loolu nga jëm ko fay faase mais ñii duñu la ci bàyyi. kon lépp lu ñu mën pour jëm laa nappaaje daañu ko ci def léegi nag pour nga mën cee génn il faut nga am sa fulla am sa fayda moo tax may sàkku ci président Bassirou Diomaye Ousmane Sonko. Mhm. ces réformes yi nga xam moom la ñu indi ci wàllu justice mais il faut que ñu précipité ko. Mhm. cette réforme judiciaire là. il euh, bi nga xam ne ni gars yi commencé nañ ko fi mais au moins mu parce que boo gisee actuellement nii. Mhm. Euh, euh, picc yi di tëb di dal c'est parce que tout simplement dañu am yaakaar. Mhm. mais bu fekkonte ne actuellement nii procureur commencé na woolu woolu woolu commencé entendre ñenn ñi daañu te leen leen lu leen mais l'essentiel ak lu ciy mënta man li may xaar ci état bu Sénégal loolu la soxna Issa. Mhm. li ñuy xaar si ñoom mooy il faut que ñu jëm seen kéemtalaay kattan ba réforme yi nga xam indi nañu ko ci wàllu justice ñu jéem a xool lañ koy mettre en ba ñëpp ñi nga xam ne tudd nañ ne seen loxo dafa taq ci gestion état bi fi nekkoon nañ leen woo déglu leen bu laajee ñu jébbal leen yoon nañ leen jébbal yoon mhm. mais l'essentiel ak lu ci mantam ñoom ñii li ñuy def nii du affaire de gentleman pap mhm. euh, pap mhm. en tout cas man sama gis-gis la sama gis-gis la li ñuy def nii du de gentleman parce que bañ ne euh, président Bassirou Diomaye Faye indi leen benn projet li tax ñu rejeté ko parce que tout simplement président Bassirou Diomaye Faye yëgulu leen ko mais ñoom député kañ la ñuy yéegal. Hmm. mais c'est des gens yoo xam ne si bëri ay xuusuma ñàpp la woon président Macky Sall mooy toog ci palais ba ne dama bëgg ngeen wote la benn affaire duñ ko xalaat dañuy jékki-jékki wote ko par procès. c'est parce que tout simplement président Macky Faye président Macky Sall nekkatul à euh, palais palais présidence. Hmm. moom moo fa ne léegi Bassirou Diomaye Faye bu envoyé benn il faut que ñun ñu toog xalaat ko. Hmm. c'est parce que xam a instauré inst wane seen marque comme quoi que ne ñoom ñoo nekk ci pouvoir bi. ñoom la état bi fal. maanaam ñoom la population bi fal. kon ñoom li war a def mooy jéem a doxal te doxal gi nag buñ ci am yox-yox gis nga buñ ci amee yox-yox lu doy ni tar ay ni. ñii daañu am ci ñoom ndam te waruñu leen am ca parce que li ñuy def nii politique la. li ñuy def nii. politique la communication politique la parce que tey jii boo demee ci àll bi am na si ñoo xam ne fu mu toll xam nu comme quoi que ne dañuy waajal élection législative yi am na si ñoo xam ne fu mu nii ñu ngi di woote di dajal di dajal say mm, mm, mm. parce que actuellement lii dañuy waajal élection législative pour que su ko defee ñu nekkaat député mm-hmm. kon lii ñu def ne ay tapas kese la kon état bu Sénégal bu mu leen ci fekk ay clin d'œil la daal ah, bu ko su ko defee au ñu mën a topp population bi ci la ñu bëgg population bi ñu topp mooy dañuy bëgg un dafa am lu fi nekkoon loolu fi nekkoon Sénégalais ñoo dem ba gis tu seen bopp mhm. moom moo tax ñu jël fi teg fi Ousmane Sonko teg fi ki nga xam mooy président Bassirou Diomaye Faye mhm. kon li ñuy xaar si ñoom mooy ñu doxal ñoom mhm. léegi nag bu ñu fi nekkee nag du yox yox yi. Mhm. mais doxal un an deux ans. Mhm. mais si mais seen naa doxal googu sax nga wax léegi je pense que Bassirou Diomaye Faye l'a bien compris parce que démb communiqué bi nga xam ne jóge na présidence. Mhm. lu mu ci bind mooy je prends euh, parce que est-ce que tamit lu ci wàllu politique politiquement moom réussir na ko parce que géopolitique la ah. Euh, le fait que aussi de de prendre cette loi là euh, jéem fexe pour ñi nga xam ne ñoom ñoo député yi voté ko.

avec les les les comme on le dit. dem ba jeex. peut-être peut-être mais xam nga li gën a garaaw sox euh, kii keroog ci seen ci yi. Mm-hmm, mm-hmm. maa dégg benn femme boo xam député maire ci benn localité localité bi laa fàtte. nekkoon na sama tur liste dafa nekkoon sama bopp léegi far mu dañ. Mm-hmm. ci biir waxam maa ngi ko dégg mu naan président Macky Sall ñun de jooyu ñu dara à Kaolack. parce que suñu yoon wi nga xam ne moom lañ doon jooy président Macky Sall def na ca presque trois soxna Aïssa dama lay défier. oui yoon woowu ba ma fi jógeeg léegi yàggut. Mhm. te naa la génne dama ko fàtte mais dama ko doon jox Fatou Bintou Fall mu télécharger ma photo yi daal ma koy tegal fii. Mhm. yoon wi fu mu toll nii boo fa demee doo dem doo dikk. Kaolack Fatick bi. Ah, man trou de femme bi daal député mel na gis naa ko fii benn femme bu xaw a ñaaw la nii. gis naa ko fii kii bi. ci député yi waaw ci député yi fii. Mm. gis naa ko dem mais mais mais mais mais mais man gis naa gis naa kii woom ah, gis naa gis naa kii bi mais dafa dama doon trouvé sur dëkk bi laay fàtte. mais nii. Mm. gis nga nawetu daaw ba. ndox ba fa newoon moo fa nekk actuellement bi ko fi naa bi fekkatee xam fan lañu jëm te nee nañ président Macky Sall moom ci lu mu wax dogal na fa 300 milliards. eh waay daw sax dëkk <laughs> quoi da ngay nekk si benn truc bi rek di wax. mu mel yow la ngay wax moom dëgg la alors que la ngay wax c'est tout à fait le contraire parce que la ngay wax am na ay sénégalais yoo xam ñoom ñoo gën a xam toog ti toog jàpp seen ñaam moo tax chaque jour ñoom ñëpp am nañ <laughs> ko ñoom ñëpp nekk ñëw wax sa jafe-jafe gox ma ne ko xanaa tey ngeen bu woon daanelee parce que boo gisee mën a actuellement ne fu mu toll ñoom ñëpp kenn ku si yaa ngi sa base politique dama lay jox dama lay dama lay jox exemple. fu ci mel ne Kaffrine. diggante Katakel jàpp Taïba. vie euh, doléance bu yàgg la. boo xam ne population bi actuellement nii naa ci dellu si fu mu toll nii ñoom dematuñu dematuñu. parce que seen yoon woowu leen la ndox mi xotti. te loolu yàgg na population bi pour ñu jaar fa la. léegi nag tey ji di nga gis ay politiciens yoo xam daañu jóg pour jéem leen a dig ne yoon woowu daañu leen ko defaral. li ma bëgg a xamal waa Kaffrine comme quoi que ka nekk ci pouvoir de plus de douze ans douze ans mu nekk ci pouvoir de xalaatul defar leen yoon woowule est-ce que tey jii kooku nekk na ci opposition kooku na leen defar yoon wi question la bu ñu war a mën a posé moo tax sénégalais ñoo war a muus ñii bañ nekk ci pouvoir bi douze ans mënoo leen woo téléphone ba jot leen bu ñu la wooyee ay vitre vitre teinté lañ lay rombee mm-hmm. boo demee seen kër doo fa taxaw ndax ay buddi ndax ndax ay ay nervi

Macky Sall bu ñuy aussi gars yi mobilisé jox assemblée nationale président Macky doxalal kon li président li ñu defal président Macky defal ko président Abdoulaye Wade kooku war nañu ko mën defal président Bassirou Diomaye Faye nañ ko jox assemblée nationale ne ko président doxalal léegi bu déwénee un an deux ans gis nañu ne bu boobaa nag ñu wëlbatiku fi dal ci seen kaw. Mhm. man loolu laa gëm. mu ngoog et puis sax l'Assemblée nationale ça doit être le reflet euh, de la <laughs> population te population bi lu ñu wax mooy jox nañ ko kàddu à 54 pour cent donc pourquoi pas lui donner cette majorité là au niveau de l'Assemblée nationale moom aussi mu mu mën a mu mën a doxal tant bien quand même aussi dinañ dinañ teg lii. xool bu baax a baax fan la ñuy teg seen tànk fépp fu nga xamante ni yaakaar nañ ne man dama bëgg député bu nekk de veille d'alerte député ni day toog xëy na jox nañ la arme yi nga xawar a liggéeyee mais dana xëpp bëtam di xool su gisee lenn lu naka su dul noonu ñu indi ci ay coppite du nag cette importance là de changer texture ak miniature yu député euh, assemblée que kan moo war a doon député kan moo war a représenté ki nga xam ne moom moo di euh, Sénégalais bi ci assemblée nationale parce que tamit du ay caaxaan Pape Sané. Aïcha da ko wax da wax sànq lu am solo da ne bii yoon ci plénière bi député bu nekk <laughs> ña leen faloon affaire ca gox yañ leen falee nañ leen gëj a gis xameetuñ leen mhm. nañ fa gëj a jaar sax ah, euh, pour wax la rek mission député fii Sénégal dañ ko jëlul au sérieux mhm. waaw pour ñoom daal nañ leen fal mhm. ñu am seen prêt bancaire lijjanti seen registre de commerce jël seen passeport diplomatique bu ñu xëyee dem Chine dafari conteneur bu ñu xëyee dem Dubaï dafari conteneur wala Malaisie ainsi de suite boo demee assemblée nationale. Mhm. moom ak Sandaga yem waaw. c'est-à-dire ay commerçant ki commerçante rek fa nekk. Mhm. donc ñoom ay businessman ñoo fa nekk léegi tey ji ñi war dem euh, ci ci li nga xam ne mooy renouvellement. parce que c'est, c'est un renouvellement du personnel politique tamit. du du yem kese ci assemblée nationale. Mhm. c'est un renouvellement du personnel politique moo tax dama jàpp ni que le président Bassirou Diomaye dafa yéex ba tey ji cest dire lii di am nii yëpp nag dañ ko wax te dee euh, quatre mois après wala ba tey ji président Bassirou yi nekk ci ay calcul wala ci ay truc mm-hmm. c'est parce que quelque part je dis que euh, moom mooy permettre kii nga ñii nga xam ne mooy opposition bi di mun a interagir di def lu leen neex mais tey bu doon nañ ko waxee woon nañ ko doxee noonu lañ ko doxalee. Mhm. parce que man toog naan dañuy xaar ay réforme de la justice man loolu laa gëmul woon. bon sens waaw la preuve dem nañu waxtaan fële ba tey jii réforme yooyu kenn gisu ko. réforme justice yi ñoo yéex. waaw non c'est-à-dire gis nga justice noo ko réformer réformer réformer. dafa yéex. Euh, soxna si ce sont les hommes qui incarnent la justice la justice hmm. ñoo am solo c'est pas c'est pas les textes textes yi sa les meilleurs textes parce que fi ñun Sénégal on a. d'excellents textes boo ko xoolee Afrique bi fii yëpp nañuy ñëw. Sénégal lañuy ñëw di ut si ay textes. donc pour parler de textes on a de bons textes. moom kay léegi les hommes qui vont incarner ces ces ces ces ces ces ces mooy problème bi. Mhm. donc dañu war a fexe ba nga xam ne. lii mu diggaale woon ak sénégalais yi mooy bu ma ñëwee toog dañuy jub juba jubanti. Mhm. nañ ci nekk nañ ci nekk mais moo gën nekk ci ay réformes parce que ces réformes là ba tey jii ñu ngi ci mhm. lan lay jur on ne sait pas on peut avoir des réformes mu nekk encore des textes beaucoup meilleurs mhm. textes yu gën yi fi nekk mais on met des hommes yi nga xam ne mhm. jaruñu ko te mënuñu ko est-ce qu'on aura président dafa dana am lu mu bëgg voici le problème qui se pose moi je crois que le problème fondamental tey jii tey tey si le président veut aller dans une ni ko Ciré Clédor liy waxee. Mhm. mooy il faut aller très rapidement. et fermement. Mhm. loolu rek. que mu jeex benn yoon alors ci politique nañ nekk nag. Mhm. bennoo li ñu def ils sont dans leur droit dans parce que ils sont en mode survie. nit ki nag Ablaye Wade ni mu ko doon waxee béy boo ko bëggee rey sax. day wéqu dana wéqu donc ñoom it il faut ñu wéqu donc. <laughs> mënta ñàkk. la politique euh, soxna Aïssa fi may danalee. oui très rapidement da ngay am fulla politique. am na foofu la nga am ful am benn benn benn genre pugnacité. Mhm. parce que moo la ci génnee. Mhm. boo fàttalikoo Pape Sané xaw ma daa nga ko fàttalikoo ab Senghor bu mu jëlee pouvoir bi daal di ko jox ak yaa xam Abdou Diouf. Mhm. les barreaux socialistes lu ñu doon wax. lu ne lañu wax. xale la xale la. mënul mënul. lu ne yëkkati ko. mais ba sa waay indee créé yi. nu gars yi mujjee def dañ doon raser les murs. non. non un pouvoir da nga koy fees. non non gis nga soxna Aïssa. la chaise du président da nga koy fees bu mu ñëwee toog gars yi naan noonu war a ko woon nekk di xaar ay ñoom Mamadou Ba ak ñoom seen. Eh. parce que ñoom ñoom ñoo fi nekkoon. Eh. mais moom Abdou Diouf dafa leen ëpp fulla. Eh. xam na ne man maa leen gën a yegg. baron socialiste yi nekk di coow tey jii si bëri si ñoom daanaka ñu ngoon ci nguuru Macky Sall gi. mais ba Abdou Abdou Diouf taxawal CREI yi ñu si bëri si ñoom dañoon dañ doon dugg si yi boobu nañu bàyyi politique ñu si bëri dañu bàyyi politique am na si ñoo xam ne ci lañ dem daal di euh, ci Abdou Diouf mhm. parce que xam na ne bu fekkente ne mettre en exergue CREI bi ñoom ñëpp kaso nguur boo ci tolloo da koy fees mais bien sûr seen calcul politique moo leen yóbbee li yëpp quoi en tout cas quatre mois nga nekk ci pouvoir bi dara yëngatuwul. moo tax nga may